fii ci Ziguinchor gis fii espace public bi nga xamante nag defar nañ ko ba mu yànj doon na lu jafe ca quartier Kandé Sibink ñu gën koo xam ci tuuru Kandé Baneto image bii ngeen di seen fii nag espace public la wala sax espace vert waaye nag amul banc public amul fleur amul benn aire de jeu mu mujjee doon nag tey ji fu nuy tuuree mbalit mi. suñu yéene bi yëpp nag loolu la dañu bëgg ñu defar euh, espace bi mu doon benn espace bu rafet. mën nañu antu toog fii jël ngelaw bu feex tu vois yooyu daal mooy suñu suwe. waa suwe boobu mënul antu parce que ñun quartier bi amuñu doole pour mën a defar loolu donc mairie bi moo mën a jàppale nit ñi ci loolu. li ni mel itam lañu nemmeeku ca rond-point Aline Sitoé Diatta foofee nga xamante nag am nañ fa it espace vert naka noonu itam fu jàkkaarloo ak gouvernance bu Ziguinchor yii la espace nag joxuñu leen cër ji ko war ba askan wi mën ci gis seen bopp. te ji buñ naree lim ci ñi nga xamante nag ñu ngi def ay jéego ngir am espace vert bu baax mënees nañ ci lim waa Castor ndaw yooyee nag daal di lëkkaloo defar bile espace bi nga xamante nag bëgg nañ mu doon seen espace vert ki jiite seen AIC nag daal di dëggal li ni mel. nit yi dañ ci tuur mbalit euh, chaque année dañuy ñëw di génnee ñaax yi. Euh, ñu ne loolu mënul continuer naka la ñu war a def il faut ñu aménager espace bi si aménagement boobu ñu xalaat naka lañ ko war a aménager parce que amuñu xaalis ay see amuñu xaalis euh, mais on s'est di que ñun sax euh, day doon communauté bi waa Castor ñoom ñooy financer seen aménagement seen espace vert mais si jeunes yi lañ commencé espace vert bi nuñ ko gisee ñu ne waruñu xaar ñeneen ni si biti wala suñuy wax municipalité lañu war xaar wala keneen duñu ko mën a def ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a def suñu bopp. waa mairie bu Ziguinchor nag jot nañoo àddu lu jëm nag ci coowal espace vert yi nga xamante nemmeeku nañ ko fii ci Ziguinchor amul benn bi nga xamante nag wuyoo na tuuram. dëgg la ñun am nañu programme pour nga xam ne dañu def ay réalisation réabilité espace vert yi moo tax ñu tàmbali ko fii ci escale bi boo seetee avec accompagnement euh, ministère bu chargé à cadre de vie. moo tax boo gisee gouvernance ñu ngi ngi koy lu fu mu toll nii ñun ñoo ñun ñoo ko ci def boo ñëwee Correntas ñu ngi si kawam ñu ngi identifier yeneen espace yu nga xam ni véritablement dañu fay def poumon vert si quartier yi mais boo seetee quartier yi nga xam ne dañu dépourvu de truc euh, c'est des quartiers traditionnels yu nga xam ne du tey la am am nañu programme bi nga xam ni euh, ren de bu buy ñëw dañu dugg si aménagement véritablement espace vert yi pour rafetal ko pour taaral ko am nit ñi fu nga xam nañ fa mën a daje di feexlu. Ziguinchor doon ville bi nga xamante ne nag verdure am am na solo lool la mu war a doon ville bi nga xamante ne nag tey jii war nañ ko liim ci rafetaayam li jëm ci espace vert yi fii ci mim réew. waaye nag li ni mel ba léegi antuwul ndaxte gis fi espace vert wala espace public bi nga xamante nag toppatoo nan ko toppatoo bi ko war doon na lu jafe. di fàttali itam yenn ci espace vert yi nekk fii ci Ziguinchor jot na ay coow lu bëri diggante population bi ak mairie bu Ziguinchor. li ni mel nag tax ba tey ji ñu war a amal ab gëstu bu yaa ci lu jëm ci espace vert yooyee fii ci commune bu Ziguinchor.